ñu ngi lew too ñoom ñaar Bombardier pied droit wala regret pied droit Bombardier pied gauche ñu ngi lew too grand contre petit la dafa xew mais temps yi grand yi ñu ngi bëgg ay petit aussi est-ce qu'il est tamit duñ ko xool lu xew diggante grand contre petit grand yi lan la dañ leen ëpp hygiène de vie wala lan la wala dañ leen gën a ñemee entraînement wala expérience la face à la jeunesse est-ce que loolu duñu def taxaw seetlu ci loolu noonu lamb ndax amati na favori amateur de lutte yi ñu ngi na teg et pourtant ñoom sànq ba tey ñooy yëngal stade bi stade bi bu neexee mbokk yi c'est les supporters ñu ngi noonu toog ñoom ñëpp noppi ñaari mbëri ñu ngi ci enceinte bi di remplir seen contrat ñu ngi damante ay baaraam ñoom ñaar Bombardier ak Reug Reug Reug Reug dafa bëgg a jàpp Reug Reug c'est vrai que ni champion la yàgg naa bëri bëri poids lourd Reug Reug digganteem ak Elton Léopold Sédar Senghor dootu ñu ko fàtte bis boobu nga jàpp Elton manœuvre yëkkati digganteem ak Gris 2 fii ci biir arène nationale dootu ñu ko fàtte c'est un technicien moom tamit xale bi. danan la yak na bëri lour Reug Reug Bombardier Reug Reug jàppante bi la bëgg mais Bombardier dafa xam ni loolu rek nga bëgg moo tax du la ko gaaw may ndaysan la ilaha illallah waaye ndaysan lamb yak na neex ndana ni yak na no dajé waaye dafa am champion yoo xamante ni vraiment waruñu di tëj di bëri mbokk yi aku Reug ak Bombardier ñu ngi demante ay baaraam ba tey amaguñu round observasi. et pourtant loolu lañ doon xaar at bi sifflé combat bi runkum daje am jàppante nga gis mbappat gis bëri mais nag luur bu toll Bombardier buy bëri moom da ngay xam Reug Reug ndax bëgg ndax day bëgg a dem mi ngi suul tànk yi Reug moytul moytul loxo droit Bombardier dama ko a ragal loxo droit ba day wax moytu ko ñu ngi damante ay baara jàppante nañu Reug Reug jël na ko Reug jël na Bombardier lan la bëgg loolu la bëggoon Reug Reug laay laay la laa waaw Bombardier waaw ah, doole la doole la billaay dafa yàgg contact Reug Reug dafa yàgg contact laay laay mën a bëri na ko laay laay la laa wul bi tàgg waay xale bi làmb amatuma lu ma siy rëccu dama seen bànneex amatuma sam naqar di dëgg maa ngi lay ñaanal gudd fan wér gu yaram ñoo far day de ñoo you